maa ngi tudd Babacar Diallo maa ngi nekk dëkk ci Grand Thiès deuk di responsable aussi aper Thiès Ouest li warolon jotay tay bi ak waxtanu tay ji réunion la won bo xamni dama am ben initiative bo xamni euh dama ko def par rapport ak xalé yi nga xamni su école tëjee ñom ñoy ñew di liggéey si fi ci man ñu nek ay élève tay ji mu nekkoon lo xamni dama ci warona def li nga xamni moy remise ay cadeau par rapport ak yeneen ak yeneen ay bagages yeneen yeneen lii di sac lii di ay cahier lii di ay bic lii ay matériel géométrique lii di côté aussi social bi ñi nga xam ne jànguñu aussi ci côté yenn école yi nga xam ne dañ leen defar social événement boobu maa ngi ko waroon def waaye bu yàgg la woon waaye li ko waraloon mooy que ni ki nga xam ni moom mooy sunu xali général des Tidianes muy sëriñ Abdoul Aziz Al Amin boobu dafa fekk mu nelaw moo tax ma reporté ko ba incha allah le 29 ma japp tay bisu tay ji di dimanche mani bayil ma def ci réunion bo xamni dina waral ma invité responsable yi nga xamni moy responsable avec yi nga xamni dama nek ak ñom responsable mouvement yi responsable enseignants yi aussi la même chose élèves yi ñi nga xamni aussi étudiants yi étudiantes yi a ngi fi ak xalé ndaw yi aussi ñepp ñi ngi fi donc pour lan pour dem leen dimbali te limbal bi moy lan moy fexé numa leen am ci ay mbir yo xamni wañi sen waajur yi sonn nañu pour fexe ni ñu leen dimbalee pour may leen ay matériel géométrique may leen ay livre may leen ay cahier may leen ay sac pour ñu mën a dem jàngi ji nga xam ni seen waajur du ñu am benn coono. loolu moom moo doon sama mbébét tey ji fii ci Grand mu nekkoon nag premier pas muy réunion bi mais bis bi mi ngi nekk le 29 bii muy le 29 octobre la war a nekk fii ci Grand donc loolu moo doon moo waraloon bisu tey ji parce que su ngeen déggee sànq wax naa wax bu am importance. moy que ni dafa am kilifa go xamni ni depuis lors ma ngi wara tok ak mom mais tokuguma ak mom ñàkk tok bi ak mom mom mo wara a tax mënuma am dara lo xam mun naa ko sànn ndax dañu fassante won ci colère colère boobu ñu sax fassante won man duma fecc colère donc loolu motax pour ma mën ci tontu bu ma ko gissé baxna na ko gisul le 29 incha taala dina def point de presse bo xamni ni yaakaar ni point de presse bu mag lay doon suma ma ci événement bi lay def point de presse bo xamni ni point de presse bi ken rek mom mom mom ci.

bu nexé yalla lañu def point de presse. bon xawma de toute façon amna ko xamni moy xaritam ben bakkan wax naa ko waxaat ko waxaat ko encore wax na man mangi ngi taaxirlu waaye taaxirlu dafa am fu yam donc de toute façon luma ma ba wóor moy que ni man su ma ko avant le 29 dina toog ak mom inshallah taala man duma fecc kóllëre moy li wax rek dama fasante woon ak mom kóllëre kóllëre gog du jugee ci fecc ci man waye su ma ko gisul fii incha ba événement bi bu nexé yalla man dina jël sama responsabilité bopp parce que man dama fit yalla ma bindé non dama am fit ba pare ragalu ma dara man ragaluma dara. justement président Babacar dan ak ndax da ni yow nga responsable day am envergure nationale. non mom lay wax que avancer parce que man samay wax day lèr li tax man la dama am fit te ni ku nek Cheikh chedi Mansour 17 ans diko nekkal diko damal diko dara bi lu ne gis nako yaakaar naa ko te ku ma xool xam dama am fit fit laa am namu ma dara nag. su ngeen xoolee la plupart euh, dafa am nit ñoo xam ni dañuy wër rek di féewale doomu adama yi dañuy wër rek di yàq doom diggante doomu adama yi te boo leen waxoon ne leen ma fukki nit sax amuñu ko. ba pare boole ci dafa am nit ñoo xam ni dañuy jël seen alal di ko pasa pasaree di ko yàq ci ñenn ñi te waruñu ko yàq foofu am na feneen foo xam ni foofu lañ ko war a def. tey jii boo xoolee ñi ma wër sama ginnaaw ñii soxla nañ ko waaye ñii dañoo doylu doyloo yàlla ba pare gisuñu lenn lu fukki seen bët benn bi mooy que beneen bi mooy que ni ñii ma wër nii bu fekkoon ni caaxaan moo tax ñu wër ma du ñu wër sama ginnaaw waaye ñii dëggu moo tax ñu wër ma ànd bu dëggu moom moo tax ñu wër ma te yaakaar naa ni avant yaakaar naa avant may dugg ci politique laa àndandoo ñenn ñi teraanga ak di jëflante ak ñoom sans autant kenn kon tey jii su ma taxawee fii di wax yaakaar naa li may wax. ko dégg rek dina xam ne li may wax ni dëgg la te raamuma jëflantewu ma daw ma benn buntu naan diw may ma daw ma benn buntu di fëgg buntu nit daw ma benn bunt di sonal nit fi ma toog maa ngi fiy toog ndax fi ma toog Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour moom fi dëggal moo tax ma toog fi ba fi ma toog nii jëflante doomu aadama yi parce que social bi ngeen dégg nii yëpp man maa koy jël en su ngeen xoolee nag la plupart ñi nga xam ni dañuy yaakaar ci ñenn ñi moo tax ñuy def yenn ñi waaye ku yaakaarul ci kenn yaakaar naa ni doo taxaw kenn naan ay dóor la ni ko gars yi di waxee ay dóor la bii du dóor bi yaakaaruma ci kenn bi suñu dooleel laa ko yaakaar ak jeunesse Grand Thiès ñu fas yéene ko def ko ba mu mat sëkk te su jour ba yaakaar ne ñii sama ginnaaw lu ñu am dinañ ko indi ku ñu am dinañ ko indi te gëm naa ni dina nekk loo xam ni su ko président Macky Sall gisee dina xam ni Thiès am na lu ko tax a jóg te Thiès am na ñu ko mérité am na ñu ko mën a yor. jàll jéeri yow xaaroo li la réew mi jariñ sa xel nga xel li waa ngir jariñ sam réew jàll jéeri yow état fay. waaye yaa ngi dimbali état na ndaw ñi jàngee gën a wóor boo mokkalee ber sa daara jàllu jéeri yaa may fàttali jéeri joor ndee la jàmbaar ja yaa ma fàttali hey amari ngoone sabeelat ngoone paaraar magi démb ya nga may fàttali sa jom loo yaa ko moom ko may bu ko lekkee lew na ko dunde saw ñàq la jàllo jéeri atam ye néew way waaye yéeneem rëy na Sénégal ay patriote baa yow li la réew mi jariñ taxul nga fàtte jariñu rew mi rew mi jangal na la mi yar na la fay nga bar bi jariñ sam rew Babakare yal na yan bi woyof toy ba melni mbaxana yal na sab yan woyof yéena nga sa kan jallo Diallo na yan bi woyof ma ngi tuddu babakar jallo dëkk fi ci Grand Thiès dëkk fi ci Thiès Ouest di responsable APR Thiès Ouest fi ci Thiès ma and ko ak samay rak ñi nga xamni ño ñoo nekk ci Grand Thiès ci jeunesse Grand Thiès di ci jidal ki nga xamni moy Modo mi ngi ni tok sama wet ci walu jigeen ñi ma ngi nuyu Ndey Saar mi ngi ni sama wet sama chamoñ ki ngi nan Kumba mi ngi ni momit sama chamoñ di nuyu aussi ki nga xamni mom moy soxna tola

mi ngi ni toog moom it ànd koog forte délégation am kon tey jii mën naa ne ay délégation ñëw fi ñëw te yaakaar naa ni ku ci ñëw rek am nga loo bàyyi sa koñ waaye mënoo indi ñëpp dañoo ñëw pour def préparation bis bi nga xam ni moom la ñuy waajal bis bi nag li ko tax a jug lenn la ndax à chaque fois que at bi jot vacances jot xale yi genn wàll gi yëpp dañuy ñëw fii ci Grand Thiès ci wàllu boutique. borom daara ji nek fi ci Grand Thiès la ñëw pour daan sen doole fi bu né nee sen doole nak li ko tax a dañuy ñëw pour am luñu wut pour dimbali sen bop ak dimbali sen wayjur ak dimbali walé sen kër pour baña taxawalu manit man nangul leen ko nangu bop ma leen ko nangul ma xamni tay monon mënon nañ def leneen lu bokku tak lu sharia bokku mënon nañ jël jëm jëli alal jambur mënon dañ dem nek ci taxawal ci dëkk bi mënoon nañu dem di nekk di def leneen lu du loolu mais dañoo ñëw ànd ko di liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre huit heures pile fii la leen di fekk te ay élèves lañu te élèves nag ndaw réew mi la ndax ñoom ñooy ñi nga xam ni ëllëg ci ñoom la ñu yaakaar ci ñooñu la askan bi yaakaar même njiitu réew mi ci ñoom la yaakaar ëllëg kon tey jii ñooñu bu leen taxee jóg ñuy def loolu bañ ko leen yàpp ak pour dimbali seen way juri ñoom la kon ñooñu su suñu defee loolu ba tey ba école tijjiwaat man ma xool aw ma benn fay boo xam ne war naa leen ko mën a fayal ma ànd ko jeunesse bu Grand ñu jox ma initiative bi ma ni leen li ñu leen mën a fayee mooy nañu convoqué seen way jur yi ñu ñëw bu ñu ñëwee bu ko defee ñu fexe nu ñu leen jéemee dimbali ci wàllu fourniture ci wàllu lépp loo xam ni dañ ko war a dem jàngi ji ci ay cahier ay livre ay bic ay matériel géométrique métrique et cetera et cetera loolu moo ñu tax a jug

mooy fexe nu ñu leen maye ay fourniture fexe aussi nu ñu jëlee gox bu nekk ñu xool professeur boo xam ne ma nga fa ñu jël ko en charge muy jàngal xale yi surtout ci koñ bu nekk mu am classe boo xam dafay nekk pour jàngal xale yi pour loo xam ni su ëllëgee bu ñuy def examen wala ñuy def dara mu am réussite looloo tax ñu invité waale benn école boo xam ni école bi mu ngi nekk fee ci parcelle ku ñaan monsieur Ndiaye mi ngi nee toog moom looloo ko fi indi école boobu sociale lay dox maanaam at bi su fekkee ni élève bi war naa fay ñaar fukki junni ñoom dañ koy wàññi at bi yëpp mu ñu fay fukki junni kese te yàlla tax kon loolu social la ñi ngi nii toog man mi di wax jëlagum naa ci ñetti élèves yoo xam ni duñu fay dara te social laa leen jëlee kon nag tam boobu lañuy ñuy ubbi tey jii ñu am ñoo xam dañuy jël jox leen initiative ñu wax ci wax boo xam ne wax bu gàtt lay doon wax bi nag mën naa bañ a gudd bu dee juróomi rek lañ ci jël jox leen ñu wax bu ko defee mu nekk wax boo xam wax bu gàtt lay doon su ko defee après journalistes yi dinañ ma jël man li ma war a wax dinaa ko wax lu tax mooy que ne le 29 bi moom la ñuy def te le 29 bi am na leneen loo xam ne da cee war a juddu muy lan muy ñëpp xam nañu ni ci élection yi jub kenn du ne liggéeyuñu am na ñoo xam ne ñu ngi fii toog ñëpp xam nañu ni liggéey nañu à cent pour cent te liggéey bi kan lañ ko doon defal le président Macky Sall ba yàlla tey jii defal ko sutura yàlla tey jii def sutura li am ak lu amul incha allah point de presse bu mag la war a doon man personnellement dañ ma jëloon def ma ma nekk euh, comité propagande Thiès Ouest man lañ ko dénkoon. kon yaakaar naa ni xam naa ci lu baree baree baree bari te war naa def point de presse boo xam dinaa rendre compte ki nga xam ni moom la moom mooy le président Macky Sall man Babacar Diallo benn. beneen bi mooy que ni ñëpp xam nañu ni fii ci Grand Thiès man mi saa wàllu bopp maay premier vice président ci pôle bii ñu ma def nii mu Babacar Ndiaye jiite ko man maa topp ci moom te yaakaar naa ni man aussi sama tour dem na ci président. war ko rendre compte kañ la ko rendre compte inshallah événement bi nga xamni mom lañu la ñu débuté le 29 buñu paré dina rendre compte man kuma ma gis xam man fit rek lay doxé te fit rek la am motax tax ragaluma dara. dara daara laa ragalu man ragaluma dara fit rek lay doxé motax yakarna ni avant dara ñëpp xamnañ nañ ni man ci social la dëkk te ñëpp xamnañ ci social lañ ma fekk ñëpp xamnañ ni avant dara di xew ci social la dëkk ci la nekk. ci loolu laay dox amul ci leneen loo xam ne moom laay dox lu dul ci njëriñu ñi nga xam ne moom mooy njëriñu réew mi pour réew mi jëm kanam ci loolu laay dox kon nag comme ci loolu laay dox incha allah man le 29 bu ñu paree événement bi dinaa def benn point de presse boo xam ni yaakaar naa ni li nit ñi di lëmbaloog di yaakaar di wax ak nangam nangam man dinaa def pour xam au juste li xew ma wax li xewul ma wax ko kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbooloo mi. ku ci nek ma ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di xamal la ne ñu ngi jéggelu bu baax bu téye nañ leen fi ba mu guddi bëggé wuñ ko woon ni mais li la yalla dogal di wax ne initiative bi ñu and ak babakar Diallo lepp social la te it dara taxul ñu top ko ci parce que ñun dañ ko gëm man mi wax dama gëm babakar Diallo motax ma and ak mom di wax nak initiative bi Babacar Diallo def du ne amul mais jafé na pour di kogis, gis parce que ndok ay nit fay len dem bam yag xam nga ne bo len fayon rek mënon nañ ne mën nga fayam mais nga fay len ba paré bëgg a ay kaye ak ay sac pour def ay dong social lolu mënut ñu ci wax luddul rafet na quoi di xamné nak ñun mom li tax ñu ci ak mom parce que Babacar Diallo dafa def lu bëri ñu gis du question que dafa ñëw di ñu wax côté emploi ak côté social daf cee def lu bëri ñu gis. te xam ne nag ñun ñëpp man moom mënuma lu dul dem gis ay nit ñu ñëw ñu jàppale Babacar Diallo parce que buñ ko jàppalee dinañ jàppale ndaw yi di ko xamal que ni nag initiative bi mu bi mu bi mu sumb ñun dinañ ci ànd ak moom du début à la fin duñ ko bàyyi mukk ginnaaw dinañ ci ànd ak moom. may rappeler aussi benn affaire Babacar Diallo su demee bay jàppale ndaw yi kuy jàppale ndaw bu ñu ko waxee rek war nañ ñu bëri war nañ laa dellu ginnaaw parce que ndaw yi mu fi jël ñuy liggéey bari na trop mu def mënuñu fi toog sax di citer ay tour parce que nii wala naa mais leer na ñu fi bëri ñu fi toog di xam ne nag man moom su ma sañoon ku ci nekk ma lay gën a ñaax nga ñëw jàpp ci parce que liggéey bi yaatu na metti na mais am na njëriñ trop nag. li woote. suñu ko wootee ni xale yee tax ñu woote ko yaakaar naa ni yaay yi rek ñoo tax ñu woote ko ndax jamono métti na kenn ku nekk xam na ni ouverture école métti na inscription yaa ngi lay xaar kaye ngi lay xaar big yaa ngi lay xaar fourniture école mi ngi lay xaar mu métti lool Babacar Diallo xam ni jamono ji fi mu toll xam métti waayu réew mi fi mu toll Babacar jàll jóg ni moom day politigul day social ndax lan mooy day social mooy dama jël ben journée duma ko tuddee kenn ndax su fekkonte ni Babacar dafa wax ni day politique day jël journée bi di ci wut xaalis dem tuddé ko keneen mais Babacar politiqueul dé néna mom dafa jël journée bi pour dimbali xalé mais dimbaliwul xale yi yaay seen yaay yi lay jappalé ak seen papa yi lay jappalé kon rek way may ñaan man lima ci wax du bari ñuy japp ci le 29 bob and ko ak xalé yi ñi nga xamante ñom ñoko yeyo ko jappalé ci Babacar Diallo ba rew mépp xamné Babacar Diallo ci social lay dox ñepp nañ ci japp di gërëm nag jàll mii toog daanaka wax sax warul fee mun a am comme soxna si wax na lépp ba pare ñun moom amatuñu fayam parce que ñun yaay yi dañoo sonn ci affaire yi école ndax ñun ñoo yor doom yi bàyyi bëgg nañu waaye munuñu kon bu ñu demee ñoom bañ ciy dimbale dañuy sant yàlla inscription seer na fourniture seer na bagage lépp ñëpp xam ne seer na ñun dañuy sant jàlloo lii mu def ni lu rafet la ñun moom amatul luñ ciy wax dañuy xaar rek li kiy wax soxna si wax ba le 29 bu ko defee ñu ñëw jàppale ko ñun ñëpp mu xam ne ñun ñëpp teew nañu. ñun nag jàll dañ koy sant ndax dañoo nekk ak moom ci koñ bi ñu nekk ci koñ bi fii Grand Thiès ñu yor suñu bale ñu nekk nekk ci koñ bi ay jigéen ñiy sëy fii ak ñi ñi nga xam ne dañ fee ñëw nekk feek ñëpp ñu yor suñu bale keroog bañ ko yoree moom mii mooy njëkk a génn indi ñu àddinay bale pour ñu seetal dëkk bi dinay omo indi omo ni def len ko sen bir balé bi diko joxé bu yagge dina len jariñ té ñu nak xam nañu jariñ nañu ndax bañu soté sottee sant nañu yalla bañu soté ci tabaski gi xam nañu bu baax jariñ nañu di nuyu babakar Diallo mi nga xamné bima xamanté ak mom danaka ci 2 semaines lay wara toll té caane ku ñaan caane joom ma dëkk ak mom ci koñ ba moma indi ci mom ma nga dëkk ba daaru quartier bu ñaan nimzat ci wetu ngum Ngumsaan caane mi keroog ba mu may woo di ma indi ñëw na sama kër ñetti yoon gisuma mu di ma wër ba fekk ma sama kër rakk jee toog mu ne ma damaa gis koo xam ni kuy dimbali jaboot ji la ma ni bërët ni ko man de loolu ku ko gis ko ne ma topp la mu ne ma nan dem tey la réunion ba ba ma ñëweet la ma caane wax ci kër ga gis naa ko ndax dama ne salaamaaleykum mu ne ma maaleykum salaam waxuma dalal ni ma jël naa sa doom en charge fayal ko at muy jàng te sama doom jooju toog na atu yàlla boo xam ne jàngul te xëy na ñàkk moyen moo tax jàngul ba may wax gu ma mu ni ma jël naa ko tey ci ngoon laa toog tey ci ngoon laa toog principal bi woo ma booba maa ngi tëdd sama eh, di waxtaan sama rakk jee mu ma suba la école bi di commencé te kooku yaakaaroon naa ne dootul jàngeeti kon defe naa social bi mu wax dëgg la mi ngi koy def ndax ku ne salaamaaleykum nga di ko doog a gis tey jii nga defal ko loolu kon soo nee maa ngi ci social kenn du ko wetti ñu di ko ñaanal yàlla nag lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén te dina ko mën nag ndax ki nga xam ne daa jóg di def lu baax dara du ko tee dem booy def lu baax dem rek ngay def te yow lii ngay def nii def lu baax la ñun nag ñun ñoo ngi nii toog ñoo bokk benn koñ bokk benn mbootaay bokk benn avec yàlla dogal nag xëy na ma jiite ko ay lu ma ñeenti at a ngi nii ñu nekk ci kenn dimbalewuñu nag sunu kees kenn suñu cee jox ñaar dërëm kenn mësuñoo indil ndimbal ñoo ca nekk di dugg ka daanu di jóg ka daanu ñii seeni borom kër mag la ñu mënatuñu dara ñii seen i borom kër jotalewuñu lépp te ku ne xam na ni lépp jigéen ñi la inscription yaa ngi taxaw kay yaa ngi taxaw koo ci wax mun la sama doom école ubbi na waaye demagul école ndax amaguma lu ma ko jox mu dem inscrit ñii ne amaguma lu ma jënd fourniture kon ñun bu ñu gisee waa yàlla joo xam ne suñu borom dañu koo indil muy dox ci loolu kon yaakaar naa mënuñu lu dul daw dem toppi ko kon yow defe naa jàllu jur yow foo nekk yow boo ñu wooyee ñu fekk la fa man de la ma la waxoon rek man la ma la waxoon rek dama toog naa du ma yaakaaratuma ci kenn mais yow la ma la waxoon rek foo jëm fu ne man maa ngi topp sa gannaaw sama mbooloo te am na ñoo xam ne xam nañ la ma yor si sa mais gisuñu ko te yow nee nga ma dinaa ñëw si sa gis la nga yor ñëwal nga gis la ma yor boo ñëwee sonn nañu jaaxle nañu ñu nga faak suñuy afek juróomi afek fa yoo nekk yoo xam ne nii fu ma leen ni acca ñu topp te gisuñu kenn ku leen dimbal dimbali lu suñu ñaq rek ñun ñaq rek ngokkuñu ci jeeg-jeeg yi xam ne dañuy firi seeni di dinaan attaay ñun bokkuñu ci ñooñ dañuy xëy daan suñu doole ñoo ngi lay ñaanal sa lii nga sonk yàlla la yàlla defal li ci yéene lépp yàlla la ko yàlla mottali Babacar yan bi nga bëgg yanu yàlla na ko yàlla oyofal yéene ji nga am yàlla la ko yàlla sottil xéewal saawaan baawaan ba ñëpp xaj yàlla miy fay nag lan la bàyyee ci yàlla la yàlla fay ci barke Nabi Moustapha. yéen ñëpp maa ngi leen di seen tur seen sant man maa ngi tudd Koumba Dia dëkk fii Grand maa ngi wax nag ci turu Grand Thiès jeunes yi surtout xale góor yi ñoom Modou ñoom Pape jóg leen ñu jàppale Babacar ñu liggéey la 29 fii ni ñëpp dañoo war a xam ne Babacar jàll moo fi nekk te mooy bi def wàllu social ñun nag nañu jóg nañu jóg nañu jóg il est que ñu jóg suñu waajur yi sonn nañu les femmes sonn nañu góor ñi sonn nañ jigéen ñi sonn nañu xale yi sonn nañu. ñu ngi sant sunu rakk ji di Babacar Diallo ndax kat li tax ñu ànd ak moom moom moo woo ci social bii tey muy monsieur social. mu ne ñëw leen ànd ak man comme yéen social ngeen def seen école may itam social laay def ma daal la jàppale xaw wax na fi léegi ne jënd ñetti élèves di leen fayal loolu déjà rek c'est un grand pas di ñaan yéen itam jox naa prospectus fa jigéen ñi ngeen indi seen doom ñu ñëw inscrire yaa salaamu mu ngi ci wetu commissariat de police bu Parcelles Assainies unité 1 entre pharmacie bi ak boulangerie bi mbedd mu jëm ci école primaire bi Ya salam fofu la nek ñun on a fait du social social mi ngi ni ku rek gis nako presque def terminal di fay 7000 francs par mois xam nga lolu ken euh, du ko def ben école ko def ñun ah, comme mon wo ci liguey bi ñu ci sawar di ànd ak mom ndax mom bima ñewé fi mu xamé ma ni ma daanaa ñew sa kër bi nga nekkee rendu len yooyu yëpp na mako ko te man ko kon ku baax nga ni ku mot andal nga ni ngi di ñaan nak di ñaax ngeen ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi ndax kuy def social kat dañ laa war a jàppale ndax social rek moom mën a dox léegi ci jamono bi te moom ko doon def bien avant muy politique wala muy nii wala muy naa da ko yàgg di def ba ngeen di ko wax fii ah vraiment euh, ñu ngi lay sant Diallo Boubacar di la sant ndax euh, su école bi jàpp nga ci ndax euh, wax na ma lépp avant may ñëw fii la déclaré responsable wax na ma lépp ne ma vraiment ku baax la man ba may gisee sax dana xamante ma yow ah mu ne ma nga ne ko kii sama grand la sama lépp la waaw di la ci sant ah, di la ñaan te nga sa liggéey bi jëm kanam le 29 itam dañ def tout incha allah pour être présent à tes côtés foo ko nu wooyee dañ ñëw ci sa wet jàppale la ndax yaa ngi jàppale wasalaam di sant yëpp yëpp